baax a baax di la jaajëfal euh, Lamine ñu lay félicité euh, di la encouragé ci turu président Abdoulaye Dièye mouvement bii nga taxawal ñu lay ci ñaanal di la ci encouragé ndax effectivement doo ci gan wax nañ ko sànq ku xam-xam la ci engagement ku la xam-xam na ci détermination waaye ku la xam-xam la ci taxawee soxla yi nit ñi ak yitte nit ñi ndax politique moom du dara lu toppatoo soxla nit ñi toppatoo soxla askan bi xool nu ñu jëmalee dëkk bi kanam ak nu ñu jëmalee réew mi kanam te biñ la xamee ba léegi sa engagement foofu nga teg sa tànk ñu lay euh, jaajëfal bu baax a baax di rafetlu mouvement bi yombul nag parce que politique nag sosal sa bopp dara jël sa yoonu bopp yombul il faut être très courageux ak nga am fit am am engagement pour mën koo def waaye teg nga ko aussi ci ndigal ndax sëñ Saaliw Cuun bu sëriñ Béthio Cuun bu la joxee ndigal kooku nag ku mu jox ndigal war ngaa mën a xuus te xam ne fa ngay dem mën nga koo ñeme donc ñu encouragé la bu baax ci loolu ndax nit da ngay am kilifa am wéeruwaay Sénégal dafa am ay réalité politique bi aussi ñi am kilifa ñi dañ cee war a dugg ndax waruñu ko bàyyi ci loxo ñi nga xam ne ñi leen yilif bitim réew la ñu ne xam koo xam ne say kilifa bitim réew la ñu ne ñu bàyyi la nga nekk acteur politique ci ci Sénégal heure bu nit ñi juumee ba fal la waa bitim réew ñoo lay commandé li ngay def et loolu c'est extrêmement important te nit ñi dañ ci war a am vigilance donc dëkk bii di Sénégal kenn mënu koo yor te joxoo cër kilifa diine yi kenn mënu koo yor te réalité Sénégal yi adapté woo ci waaye nekk ci di fitna te Sénégal moom soxla wuñu fitna dëkk bi démocratie la Abdou Diouf jóge na fi président lay Wade def fi 12 ans ñu gagné ko mu dem ci jàmm président Macky nekk fi donc ku bëgg dëkk bi da nga koy jaare ci suffrage nit ñi waaye doo indi fitna ci dëkk bi donc côté boobu aussi jeunesse bi dañoo war a taxaw les responsables politiques ku nekk jël sa responsabilité parce que l'avenir du Sénégal appartient à la jeunesse te Sénégal day réew boo xam ne pétrole ak gaz dañ ciy waaj a sotti te loolu nag ñi ko bëgg te nekk bitim réew bëri nañu te acteurs politiques yi du ku nekk moo am responsabilité pour xalaat ne intérêt Sénégal mooy bañ dugg ci ay loo xam ne nii ëllëg mën na la compromettre nga indi jafe-jafe ci dëkk bi donc dëkk bi aussi nañu vigilant ci loolu nit ñi aussi di xool ñan la ñuy àndal bu fekkee yow sëñ Saliou Thioune mooy sa kilifa boo naree jaaxal nit ñi ñu wax ak moom mu wax ak yow waaye koo xam ne ni sa kilifa nekkul ci réew mi boo ñu naree jaaxal fan lañ koy gisee bay wax ak moom donc c'est un problème donc nit ñi war nañu am conscience ci loolu en ñu ngi lay encourager parce que politique bi ñu gëm président Abdoulaye Dièye gëm ko mooy lu ñuy def na nekk intérêt askan bi intérêt d'abord waa Thiès waaye intérêt aussi Sénégal lan mooy. suqali nit ñi lan mooy avancé loo nit ñi mais nit ñi bu ñuy voté également nañu xool bu baax fi ñuy def seen i carte te bàyyi par parparloo bi ak mbumbaay bi te xool bu baax xàmmee ràññee ñi ñu ko seqal ñan la parce que acteurs yi ñu war a wotal dañu war a xool ñan la d'abord te loolu dafa am solo moo tax engagement politique bi ngeen def dafa am solo ñu ñu taxaw ñëpp taxaw donc ñu lay encourager di la ñaanal euh, sa mouvement bi mu nekk un mouvement national ndax sëriñ Saaliwu Cuun ku ko xam muy xalifu sëriñ Béthio Cuun nga xam ne Sénégal ak étranger fu Sénégal euh, sénégalais nekk am na fa cër am na fa ay nit donc effectivement donc ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax président Abdoulaye Dièye mu ngi lay niiw baax di la sargal di Lamine Gaye mi nga xam ne tey moom moo ayee dañ koy tàmbali d'abord di ko ñaanal yàlla lii mu sumb yàlla sunu borom teg ci loxo ndax bu ci tegee loxo rek dina dem ñu am yaakaar bu baax nag ndax nag ndaw buy dugg ci mbir sa wasila sa kilifa diine ñaanal la ne la jox naa la ndigal demal kooku dañuy am yaakaar ne boo góorgóorloo tuuti rek da ngay dem ndax nag Lamine gay du gan ci politique Lamine gay en tant que jeune apériste nekk ci biir parti bi yaakaar naa ku ko xamul dégg nga ko liggéey fi liggéey bu am solo ba tey jii defu ful ñaaw waxu fi luñ koy xeebee ba toll comme ni ko Modou waxee léegi xar day weesu mbote toll ci teg mouvement kon Lamine Gueye motee nga ko sëkk ndax sa vécu politique ñun nag dañ lay tàllal loxo ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy sumb ndax nag mouvement politique ba nga xam ne tey jii nii njabootu Cheikh Béthio ñoo nekk ca ginnaaw kooku nekkatul un mouvement local dafa nekk un mouvement national Lamine ci samay kàddu damay ñaan ndigal sa wasila muy sëñ Sall ndigal cuun ne ko na la def représentant national sur le plan politique des Thiantakoun kooku mën naa ne ndax xam naa ne mote nga ko damay profité ci tribune bi di wax sëñ Sall sëñ Saliou ndigal cuun ñoo ngi koy lancer un appel mu jël jëwriñ Lamine ngay def ko un responsable national ndax xam-xamam ci wàllu politique matee na ko yaram matee na ko ay relation matee nañ ko te lim fi liggéey moo ngi ne fàng ñëpp mun cee dut seen baaraam ci kaw sa mouvement boobu nga taxawal tey ñu lay lancé un nappel ngir nga ñëw jàppale njabootu président de la république Macky Sall fii ci biir Thiès Modou Fall wax na ko léegi l'heure est à la recomposition politique ici à Thiès te loolu yàggatul léegi mu ñëw bu tombeek li nga xam ne Lamine Gueye tey teg na ko fii ci biir Thiès woo ñu ci dañuy ñëw jàpp ci ñaanal ko yàlla ndax nag dafay nekk un autre démembrement ba nga xam ne day ñëw yokk njamootu président Macky Sall waaye du ko wàññi kon nag yéen mbooloo mi ci teew ñoo ngi leen di wax ngeen jàppale seen leader bii di Lamine gay mu nekk jàppale bu fidèle jàppale bu sincère bu daray àdduna tax ngeen rompre seen relation ak Lamine Gueye responsable politique ay nitam ñoo koy dooleel te li ngeen mën a dooleelee Lamine gay mooy ngeen takk seen ndigg yi rawatina yéen jigéen ñi ko leen jàppale mu dem takk leen seen ndigg yi laxasaayu topp ci ginnaaw Lamine Gueye yéen yéen a koy dooleel yéen yéen a koy fital fu mu woote ñëw leen loolu boo leen ko defee mouvement bi dina mën a jëm kanam te li ngeen yaakaar ci moom bis buy sunu borom antoo di ngeen xam ne Lamine c'est un homme qui sait partager kàddu yi nag du gudd ndax am na ñeneen ñu war a jël kàddu dañ koy ñaanal yàlla Lamine sa bi yàlla na ci yàlla def jàmm liñ ciy yuutu yàlla na ko sunu borom defal. may ñëw tey ànd ak mon frère sama doomu ndey Dame Pouy au nom du parti de la vérité pour le développement wuyu si le lancement de la convergence patriotique pour l'émergence te loolu. gannaaw bañ ci amee ndigal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yóbbante na ma ci yow président Lamine Gueye nga nuyul ko xaritam woleeram mbokku taalibeem Serigne Saliou Thioune Digal euh, taxaw fii jël micro wax dama cee am mbégte parce que nag ma def ma wóor ne ëllëg bu buñ ko bëggee tabax duñu am kersa dañuy décomplexé wu dañuy dem ak fit sukkandiku ci njàngalem ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lii lañu gëm te sa mouvement bi man gëm naa ne ci yoon woowu lay tegu ndax kat ci dëggal jubal leeral ak yaatal ñun ci lañuy nooyee te loolu yépp du leen lu dul yéene Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci am defar réew monsieur le président dama nekkoon ak yow ñu nekk APR Modou Fall wax na ko fi léegi li may wax nii Souleymane Ndiaye Brin seede la ci Ousseynou Diouf mii seede la ci Lamine Gueye ku ko xam ci politique Thiès nga xam ne il a été toujours courageux à assumer ses choix Lamine dafa mos far te fu mu mës a far daf koy dëggal fësal ko ànd ci ak fit doxal ko boobu taxawaay lañ mos a am moom ak Modou ci biir APR encore ci biir coalition benn Bokk Yaakaar c'est ça dem nañ ba xar weesu mbote xam nga li des mooy yéen waa cantakun yi lay waxal yenn njabootu Cheikh Béthio Thioune lay waxal yéen njabootu Sine Saliou Thioune lay waxal xalifa Cheikh Béthio Thioune dama ne ab taalibe day doxee ndigal lii ngeen di def nii lii ngeen di tabax nii dama bëgg mu nekk yoon wi nga xamante ne moom mooy jëmal kër Serigne Saliou Thioune ndax kat ci élection législative lañ jëm te jëm ji toog du lu mu dee mbokk moo tax may wax mais lamin ku ko xam xam ne ku am yërmande la lamin lu mu yor jox ko nit ñi toog lamin ku feebar moo ci gën a gaaw lamin ku ñu coupé courant moo ci gën a gaaw Lamine ku indi ordonnance moo ci gën a gaaw kon Lamine mii boo leen ko yóbbee assemblée nationale doo leen ko rëccu. ñu tàccu Lamine léegi nag boo amee ab mouvement am ay mbokk taalibe nga am sa ndigal sëriñ dama bëgg mouvement bii mel ni PVD PVD c'est le seul parti au Sénégal. qui a un électorat kii ne trahit jamais bu ñu wootee kenn du leen jox paas ñoom ñooy paasal seen bopp ñëw wuy si la bu ñu dem élection yennay sol seen daal dox wuti ay nit pour parenage yéenay sol seen daal dem inscrire yi jëli seen carte yi élection ba bu jotee ngeen dem woote loolu mooy matal fula bi ak fayda bi